zaune zaune jama'a kai Ariel! I feel like going to set in the bus now. I'm sorry.

Yo, la jun wakata jun lama jiwa ku fandi ini ada yuga ada langsung jun lama jun lama jiwa ku fandi lama jiwa lama jiwa ku fandi lama jiwa ku fandi lama jiwa ku fandi I'm Walking like a lion.

Thank you. loxoom ci ngemb Boy Faye ngi jàpp ma xool ay ca jaajëfal nañ leen yéen ñi ñu topp ci TV suñu mbokku internet yi attention Boy Faye yëkkati na ko peese na door na ko mbokk yi combat bu garaaw ndaysaan combat bu garaaw ñu ngi noonu ci quart de finale dox ci diggante Ada Boy Bawol xale yi parcelle bi mooy bëreeg beneen xale ndaysaan lamba ngi mbokk yi ñu ngi fii ci stade Jom Iba mbokk yi ki ñu fi woo di association des sages ndaysaan nekk kuréel boo xamante ne ay mag ay xale yu ne ci làmb Ada Boy Baol daan na Ada Boy Baol daan na Ada Boy Baol ñu ngi noonu I love it. yëngu ku nekk nga yëngu Boy Faye général ndeysaan Sidi Barñi ak Ngor Ñaax jàppante nañ Mansour Sidi Barñi Ngor Ñaax Mansour may ma ci ndox mi ma naan Sidi Barñi Ngor Ñaax may leen ma ci ndox mi ma naan waa Leewtoo sama xarit wax daa métti mbay. ayca ma nga doon isaan jërëjëf Mansour may na ma ndox. Boy Faye général Malika. Ada Boy Baol général Malika. ah général Malika. Boy Faye. eh. Ndeysaan mbokk yi ba tey ñu ngi ci diggante Sidi Bargny ak Ngor Ñaax lamb ja yëngu na ponkal ya ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ ñëpp yëngu nañ xale yi mën a tuñoo téye seen bopp doole doxul jàmm Sidi Bargny ak Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Ñaax ña nga ca combat bi ba tey ñaari ñooy bëre nag combat faw du yomb dox ci diggante Sidi Bargny ak Ngor Ñaax combat bi mënul yomb de. Sidi Bargny Ngor Ñaax. Sidi Bargny Ngor Ñaax. Sidi Bargny Ngor Ñaax. ñu ngi ci. Sidi Bargny Ngor Ñaax daan na ko Babou Kaling daan na Babou Kaling Kaling dem na final Babou Kaling ba yëngu na na final Kaling dem na final Babou Kaling dem na final Babou Kaling dem na final eh, Babou Karing dem na final. Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na Ngor ñaax daw na jël tànk ba jël na tànk Sidi Bargny da koy jeexal wala déet Ngor ñaax arbitre toogal ngir yàlla yàlla fay la ñaax Ngor ñaax Ngor ñaax Sidi Bargny deuxième pied Ngor ñaax Sidi Bargny jàppante nañu Sidi Bargny taxabal mbot mbot mbot mbot mbot mbot yegg nañ ñaax war na domba Ngor Ñaax war na ko domba stade bi jug nañ taxaw Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Ñaax war na ko domba Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax ngi koy xëcc ma ngi koy jéem a piic Ngor Ñaax Sidi Bargny lu xew Ngor Ñaax Sidi Bargny ndeysaan Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Sidi Bargny Ngor Ñaax Ñaax daan na Ñaax daan na Sidi Bargny Ngor ñaax daan na Sidi Bargny Ngor ñaax daan na ko ndeysaan Ngor ñaax daan na général daw na Ada Boy daw na ndeysaan Hey, dale, arbitre bi sifflé na mbokk dox ci diggante Omo bi Badiane ak Ndeysaan Bas Ndeysaan gaa yi di ko wax Calme Ndour numéro 2 ah? mooy Bas moom moo la wan ginnaaw ngem boo ngem lu bële di bëre Eumeu Sène bu Badiana. combat bi ñu ngi toll ci demi-finale yi mbokk yi mënut a yomb xale yaa ngi wane seen bopp xale yaa ngi wane seen bopp xale yaa ngi wane seen bopp ndeysaan xale yaa ngi wane seen bopp ndaysaan Amma bu Badiana ak Ngel Jonn numéro 2 ndaysaan ñu ngi noonu dina yombam déet dox ci diggante Ngel Jonn numéro 2 ak Amma bu Badiana combat bi dina yombam déet Ngel John numéro 2 ak Eumeu bu Badiana Ngel John ak Eumeu ndaysaan Ngel John ak Eumeu bu Badiana Eumeu bu Badiana moo la woon ginnaaw Ngel John nga jàkkaar lool Mbaye Babacar borom Leewtoo production Ngel John Eumeu bu ñu ngi ci combat bi Ngel John Eumeu bu ñu ngi ci combat bi saan Amadou Badiane ak Ngel jon ñu ngi ci compétition bi ñoom ñaar mbokk yi ñu ngi toll ci final bi ndaysaan xale yaa ngi noonu mbokk yi tey gisuñu Serigne Ndiaye 2 bu Faas mbokk yi tey gisuñu Doudou Sané mbokk yi tey gisuñu Kalmu Ndour yi tey gisuñu ndaanaan yi nga xamante ne ñu ngi leen doon xaar ci làmb Serigne Ndiaye nee na daa blessé de nee na loxo ba day metti xaw ma baaraam ba ci combat bi doxoon ci diggante mag a Doudou Sané fële ca final ba ndeysaan xam nga mbëri samay xarit lañ moo tax saa su ne ku ci gaañu ma sànni la xeer waaye ñoom ñëpp ñoo far ñu koy ñaanal mu tane ak jàmm ak salaam dellu siwaat ci làmb ji Serigne Ndiaye de ndaysaan mbokk yi ñu ngi noonu ba tey ci final bi ndaysaan ñu ngi noonu ci final ndaysaan ñu ngi noonu ci final bi oh Ngor Ñaax daw na ndaysaan Ngor Ñaax daw na ndaysaan ñu ngi ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan ñu ngi noonu ndeysaan noonu Ndeysaan ñu ngi noonu Ndeysaan oh Serigne Ndiaye mel ni dugg si de ndax kee di ko sotti saafara ma nga ca cey lam arbitre bi daw na jëli ko ngel jonno ndaysaan amma ngel jonno ngel jonno amma daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno amma bu bajaana daan na ngel jonno amma mbokk yi arbitre bi sifflé dox ci demi-finale bi ñaari Ibrahima yi Ibrahima Faye ak Ibrahima Thioune waaw waaw ñaari Ibrahima yi la boole ñu ngi noonu ci demi-finale bi mbokk yi ñu ngi noonu ñaari xale yaa ngi leewaatoo Ibrahima Faye ak ibrahim Thioune mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu Ibrahima Faye Ibrahima Thioune ndaysaan Ibrahima Faye Ibrahima Thioune mbokk yi Ibrahima gin moo la wan càmmoñ ngembo ngemb lu vert le Ibrahima Thioune moola la féete ndi joor ngemboo ngemb lu ñuul lii daw na dóor na ko tànk Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune wër na ko ndombo Ibrahima Thioune Ibrahima Faye dóor na ko daan na ko ndaysaan wéyal na ko daan ndaysaan Ibrahima Thioune dem na final ndaysaan baax na. Zé nuyu naa la. yéen baa ngi jël bëgg sant bu baax. lan moo tax nga jël final démb tey nga ñëwaat. waa compétir rek. compétir quoi ay xale lañ toll ci war a compétir après bu jeexee jeex na quoi. bëre bi ak jël bi lan moo la ci dàqal wala ñaari yëpp waa neex. mais boo xasee ba am amulu bëre bi rek boo jëlee da ngay ñëw boo jëlul da ngay ñëw ndax nit ki même sa liggéey sax boo ko gëmul bëgg ko. pour nga jëriñu si du yomb kon nag li la ciy fekk amour bi mooy jiitu lu ñëw rek fekk la ci ñun dañoo bëgg bëre bi avant tout quoi luñ ci am rek xëy na suñu wërsëg lay doon luñ ci amul tamit du suñu wërsëg. yee. mi ngaale. Ah. yee. normal. waaw. Ah. waaw. fas kon de léegi liggéey bi day gën a yomb voyage la demee lu mun da ñàkk eh, du toog Sénégal Dakar day war voyage dem Touba siyaari sëñ si xalifa général ko lu murit dem Touba siar ala sëñ ba Abdou Karim Mbacke mi nga xamante ne day suñu lépp yee 5 millions yi tey foo toll ñu ngi demi final. de finale demi final demi. demi final waaw. Ada Boy Baol nga fi Boy Faye nga fi seen Coupa nga fi yeneen xale yaa ngi. waaw ñëpp a ngi fi ñi fi nekk ñëpp ay champion lañ. yaa ngi Boy a ko junjoonte rek. waaw noonu la demee ma xamante nañ dañoo xamante. Ah. waaw champion la may champion moo tax mooy loolu noonu. bu ngeen daje final. mënul ñàkk ñun est-ce que duñ daje demi final. ah demi final ak final bu la dàq. buñ ci daje baax na. mais en tout cas da booy fay ngi noonu dama koy yoxosu de sama gars yi dama koy yoxosu de nuyu naa la. fay naa la bu baax. yaa sant yàlla. moo toll demi final. yaa ngi demi waaw. mais la mais yàlla baax na. gis naa général gis naa seen kumpa gis naa euh, aada booy gis naa booy fay. waaw mais noonu la làmb noonu la tëddee ay ndaw lañ dañuy compétir ñun ñëpp waaw ku nekk di wut si sàcc ñu fenn ñu bu waaye am yóbbul famem fi mu jaadu rek maanaam fu mu jaadu rek yal na ko yàlla jox ndam mais maa ngi ñaan yàlla defal ma am ndam. booy fay yaa ak général a ngi junjonte rek loolu la da a léegi nii waaw. non ñooy daje demi final. waaw. nee en tout cas xam na ne tôt ou tard da ngeen di am nga ko nee na ko ñoom mu def jàmm rek. yàlla yàlla def jàmm. jaajëf. boo nekkoon doole. esat. loxo bi nu mu. loolu sax sant yàlla bu baax. lan moo tax ñëw bëri si. Ah, dama yokk ko. war nga war nga looy daw. non defuma dara dama ñu soo kilifa rek. loo wuti woon esat. ah dama doon seetaan rek. seetaan. Ah. dafa mel ni say adversaire dañoo nekk arène nationale. waaw dama doon seet waaw. ñoom ñoo fa gis ni say adversaire la. mais doomu tàng joroon. ay lamb yu neex la. mu daan. Euh, doomu tàng moo daan. waaw ah, moo daan. waaw mais doomu tàng da ngay jël. ah waaw. waaw mais Jordan mi daal. nañu bëri suñu biir bëgg ñu laaj loo xamante ni kenn du leen ko jox amul saas. dégg naa sa ay yeggoon na ko bu sori. yegg na ko bu sori. malagige malabujube yofanya malagige malabujube waaw laale Mbaye Babacar ndax général ndaanaan la ci làmb compétition yokk na dooleem ba ci lamb Boy Faye nag kenn du ko présenté ndax ku nekk champion chef de l'État doon champion CEDEAO nekk champion d'Afrique kenn du ko kenn du la présenté moom Boy Faye ñoom ñaar daal en tout cas dinañ laale dinañ bëre mm. waaw waaw bëre dina combat bi tamit dana bëri calcul waaw non yaakaaruma ko nag ndax ñoom ñaar ku ci nekk day bëgg a jaay sa morom du ma sa morom. général noonu lay bëree booy fay da koy ubbil buntu pour bëgg général ñëw waaye dinañ laale. arbitre bi sifflé na génn seen diggante. arbitre bi sifflé na Mbaye Babacar ñu ngi noonu. général féete leen di joor. booy fay féetee càmmoñ. billaahi ñoom ñaar jëli na ko baat ak toon baat ak toon daan na ko daan na ko ko booy fay daan général daan na booy fay. Oh. jarul werante daan na ko oh, daan jarul werante daan na ko. général arbitre daan na ko. gars bañ na waaye daan na de action bi amul ku daan. ah gars yi nee nañ Boy Faye daan na de. en tout cas doy na nee nañ Boy Faye daan na de. mais li ma jaaxal Boy Faye Boy Faye jëbi daa tax suuf mais général de mel. waaw mu jàllale ko da koo plaqué mu ko mais ñun ñu toog image bi dafa gaaw. bu dee dënn laalut lan moo xew. action bee gaaw. mais en tout cas action bi. général de. xam nga jii nii chaque jour lamb ki def action mooy ëpp possibilité arbitre jox la victoire. te booy xool. général moo def action moo plaqué daw ànd moom moo tax. arbitre moom la jox victoire général da ko plaqué. daw moom lu sori. booy fay di ko jéem a tuur ci moment bi mu koy tuur nag. ñii nee nañ booy fay dënn bi da bopp bi dafa laal suuf ñii nee mais dënn bi moom laal suuf waaw bi ngi booy fay dafa mel victoire contesté Serigne Ndiaye 2 wàcc na wàcc na Serigne Ndiaye 2 wàcc na Serigne Ndiaye 2 wàcc na ma yuuxu Serigne Ndiaye 2 wàcc na ma nga noonu ndaysaan Korias ma nga noonu gaa koy soosal moom Serigne Ndiaye ndaysaan Serigne Ndiaye 2 ma nga noonu ma nga noonu moom Serigne njaay Ndeysaan ma manga noonu moom Serigne Ndiaye ma nga noonu xool leen ba

ñaan état bi leen jàppale. waaye jàppale lu mu gën a bëri rek. waaye bu si daan naa la. ñu ne dañuy dajale suñuy Dakar ak suñuy dégg. sax na association bi nga xam ne moo tudd association des sages. ndax mu daan moo daan ah. dafa mun a. noonu di wax ak ñaari mbëri dimanche mars. 2022 stade Iba Mar Diop association des sages moo ñu fi woo muy kuréel gi nga xamante ne ay anciens lutteurs ñoo ko boole bokk ko ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci làmb mbokk yi il est vingt heures cinquante neuf minutes général Malika moo la féetee di càmmoñ seen kumba moo la féetee di jor combat bu nar gaaw la final baa ngi noonu mbokk yi général Malika démb moo finalu jël oto tay ñëwaat na général moytul seen kumbaak lay ngàtt ngay bañ di ko ubbil général tëru na ko na ko da ko nar a piij wala da ko général seen kumpa ndaysaan combat baa ngi noonu yomb général fàqat na seen kumpa bañ na général seen kumpa ña ngay bëre seen ku daw na jëli ko général du ko seen doole wala déet ñoom ñaar dinañ bëre général seen kumpa général seen kumpa daw na jëli ko plaqué na quatre appuis quatre jëli daanu na général daan na général jël na oto jël na essence bi jël na carte grise bi bu subaa dem rek fii de moom bu Malika jël na démb jël na tey félicitation général félicitation général Malika félicitation